deuxième demi-finale diggante Batista ak CFA Batista à gauche ngembo ngemb bu ñuul ba CFA à droite ngembo ngembal wax arbitre sifflé na seen diggante CFA ak Batista CFA bëri na combat yi a gën a gën a metti combat yi fi gën Batista Batista à gauche CFA à droite Batista ñoo nekk noonu loolu mooy deuxième demi-finale arbitre nee na leen bëre leen dinañ bëre de bëre mënul ñàkk seen diggante ndax instant bi ñu ngi ci carré d'as bi pas de la finale kon ñoom ñaar faaw ñu bëre bëre leen bëre leen du dara ñoom ñaar du bëre teel sa bopp xaar ko mu ñëw du tee ñoom ñaar ñu bëre CFA jëli na Batista nam daan def ay adversaire di ci am ndam noonee la entamé combat am digganteem ak Batista daw na jëli ko jël loxo ba teg ko ca bopp ba peese ko ba fan la féete làmb ko ba xam fan la féete ñu daw jàppante ca kaw ku ne jël sa loxo bal ko sa mbagu moroom jël sa bopp teg ko sa mbagu moroom ñu ndege ñante puusante CFA da koy puus ñu jëm ca saaku ya Batista day daw puus ba bëggul a génn parce que bu génne avertissement li génne na ko saaku ya da génne wala génnagul hey loolu la CFA bëgg dàq ko mu génn wala dàq ko mu daw ba arbitre yi gis na daw nañu jox ko avertissement CFA dàqaat na ko dugg na génn Batista CFA quel combat quel demi-finale CFA moo nu woon ginnaaw Batista moom la ñu xaw a jàkkaar lool jàpp na ñaari loxo ca ngem jàpp ñaari loxo ca ngem attention Batista koy a mboot Batista da koo saxal wet wa imposé ko ko bëgg mu yegg mu mbot ko hey Batista la nga maye bëri na CFA la mu jàpp baax na CFA la mu sëq jàpp baax na Batista la nga maye ëpp na Batista da koy mbootam da koy jéem a mboot hey du sotti CFA Batista quel combat quelle demi-finale le vainqueur sera félicité et sera encouragé Parce que les deux lutteurs, personne n'a démérité. Batista, Batista ak CFA kenn démérité wu ku ci daanu it bëre Batista lan Batista da koy wéyale mu wéy mu jàpp ca ngembale bëgguma nga dem bul sori bëgguma nga may sori dee ma jege amoon naa benn grand bu doon wax naan làmb ñaar laa ci man su ma la man ma wéy waaye Batista mi daa wéyale CFA CFA bëgg a wéy eh na ko 16 waaye dara CFA day ràcc rek bàyyi ko mu jàll hey mbër doole mbër doole hey hey Batista daan na Batista daan na CFA da koo jonglé waaw lu yéeme nag laa leen di wër kee ngeen di gis en blanc mooy papay Batista cey lamb papay Batista ngi noonu ànd ak Batista hey demi-finale Batista ba CFA CFA